من شك في كون ابن عبد الله محمد نور الورى فلاي من شك في كون ابن عبد الله محمد yu bare bari ñun ñëpp suñ kóllëre ci sëñ Touba rek moo indi lii suñ kóllëre ci sëñ Touba diggante sëñ Touba ak sëñ Jéeri diggante sëñ Touba ak sëñ Jéeri diggante sëñ Touba ak sëñ Ahmad Tasrif ñun ñëw diggante sëñ Touba ak sëñ Ahmad Tasrif mi ak njaboot ak njaboot gi loolu mooy suñu tànk ne loolu rek suñu tànk yi mbakki pour feddali wëlëre bi ne nga feddali ne wëlëre bi yéen nag ne yéen nag ngeen am cër bu rëy ci sëñ Touba ne ngeen am nag yéen cër bu rëy ci sëñ Touba boo xam ne ku ngeen ko bokk leelul rek boo xam ne ku ngeen ko bokk yemlewu ci ak yemlewu leen ci ak ak yéen. ndax dafa def. ndax ne yàlla dafa def. sëriñ jéeri. sunu borom def. teel def ci moom. def ci moom. moom muy nit yàlla. goo xam ni. goo xam ni. ñamu jamonoon toonoon ñëpp. mën nañu seede loolu. ne ba bu mu data ñëw ci sëriñ bi nag. fu garaatu góor yàlla yi àgg. sëñ Jéer yàgg na. sëriñ Jéer yàgg na fa. lii nuy def di ko roy. ne lii nuy def te di ko ci roy it. ba ci kilifa yu baax yi. ne moo ko jëkk a def. doom ju góor ju mu am. sëriñ Tuubaa la ko tuddee. ji jigéen ju mu am. tudde ko maam jaar. ba bi mu wàccee liggéey. sëñ bi dafa wax sëñ Mbakke Buso. ni ko sa bàjjen ñëw na fi léegi. demuk jéeri gi moo ko fi indi woon. ndax ni mu la def. ak ni ma def. kon yéen ne yoon wi da ngeen ci am cër ne wala réew mi nag li muy rëy rëy te newoon fi ak li muy yaatu yaatu nag nee nag ci jëmm ji rek la soxla ko muy Ahmadou Sow mii ne bi ma koy xam ne booba xaw ma way juróom ne ñi fi nekk nit ne li ma seqane ñoom àgguma ci ak ñoom ne bi ma fi ñëw moom laa ci daa fekk si ba tey jii ba ñëpp tey bokku ci. waaye nag ci moom mii la soq ko nag muy Ahmadou Sougou mii nag di taaw Serigne Bamba nag loolay dox barakam wooy juróom fab ko jëbbal ma ko man mii sëñ dan muy rakki sëñ bi muy këllëre yu rëy yu am suñu diggante yoo xam ni Pastef donga ko lal ak Serigne Touba ne loolu rek la waxal ni dina ko seede ci ci mbooloo mi nee nag mbokkum boppam mii di sëñ Abdou Mbakke mu sëñ Cheikh Khady mu bàyyi Cheikh Khady ne waram jiit laa di ñëw foofu nag mu fekk si ma fi xaman sëñ mam bu yàgg ca France nee nag loolu li tax nu àndaat bëgg wëllëri wi bëgg a yeesaat rek seen diggante ak moom lu xewati ngeen di ko seeti ne loolu moo tax nu ànd ne noo ngi sant ñëpp di leen ñaanal yàlla yàlla may leen ndam nee li mu ko déy léegi nag muy sëriñ mama bi muy génn nee loolu diggam ak moom la waaye nee nag loolu fàggu nañ ko ci sëriñ Touba yàlla defal ko ko jërë ngeen jëf man shakka fi kawni ibni abdillahi muhammadin